ginnaaw discours bi nga xamante ne si ni njiitu réew bi baaxoo na di ko am amle saa yu at bi dee waaja jeex muy ay kàddu yu muy yëkkati jagleel ko askan wi. yooyee kàddu ku nekk ak gis-gis bi nga ci amee. Eh, discours bi euh, déglu nañu ko. discours bu président déglu nañu ko ba mu jeex mais. daal ci discours bi gis naa ne moom dafa cuune ci discours bi. sëriñ bi moom jàpp ni kii di Macky Sall day discours am bii dee bëriwut ak coppite. Euh, dañuy jàpp rek ne. discours la boo xam ne depuis 2012 ba léegi li fi amoon rek moo fi amaat. kii moom jàpp ni kii di président Macky sàll day nekk na président boo xamante ni si ni day discours bi mu yëkkati bërki démb wàccoon ak askan wilee ndax liggéey bi nga xamante ni si ni doon na ko def mu am solo lool. Euh, segem at mu jot loolu day am dañ ko defaat rek comme ni ñu ko defee woon discours bi ñun jàngat yi ñu ti def rek mooy. Euh, présenté na moom président bilan bi nga xamante ne bii moom la liggéey ci sept ans yi euh, te mooy euh, ay programme yoo xam ne yaa ngi koy teg depuis 2012 ba léegi euh, set ans yi mandaam jeex na waaye gis nañ ni li ëpp ci li mu diggoon ci sénégalais yi defu ci dara ñun li mu wax ak li mu présenté vraiment dañu koy saluer tey bilan la mu am solo trop aussi moom président vraiment ci taxawaayam ak ni mu taxawoo sénégalais yi. Euh, programme la boo xam ne discours bii nga dégg nii ci 2019 bi moom nga déggoon 2017 2015 16 ba 2012 euh, li ñu doon xaar ci président ba muy teg yoonu yokkute loolu gisuñu ko lépp li ca nekkoon lu ci ëpp keroog bi ñu faloo rek la ñu jël lépp sànni ci àll bi. ndax président Macky Sall tey ak lu ko nit mënti waxal il faut ñu nangul ko ni. ay bëgg na réew mi xalamu nag dajut suuf lépp aussi matut am na ci secteur yoo xamante ne bii vraiment bu ñu sañoon mu gën a ko mais teewul wax dëgg yàlla mu ngi liggéey loolu daal ñun jàngat nañu ko ci discours bi. Euh, tey bu ñuy wax réew mu avancé wala réew moo xam ne mi ngi émergé ñu ngi ko mën a séentoo ci euh, askan woo xam ne dañuy am xaalis di faj seeni soxla bu boobaa nga nga mën a wax ne euh, réew mi mi ngi émergé mi ngi avancé. mais gis nañ ne euh, li ëpp ci réew mi euh, yoruñu xaalis seeni soxla it koo xam ne nii sa bëgg-bëgg yi nga faj war a faj mënoo ko faj kon émersance nekkul foofu ci employé yi ñu diggoon ci jeunes yi gis nañ ne président ba mu ko waxee ba léegi daanaka li ëpp ci jeunesse bi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi jàng ba pare ñu yor seen i licence ñu yor seen master ba pare amuñu fu ñu xëy mën nañ ci cité ñu bare bare bare bu ñu gisee itam euh, gis nañ tey la réew mi gën a sonn tey la réew mi gën a ndóol tey la réew mi gën a ñàkk semaine bi passé ñu ngi jógee dëkk bu naan Touba Bogo Touba Bogo mi ngi nekk dëkku sañ Fallou fii boo passé Ndindi à euh, 17 kilomètres tey président bi muy fal waxoon na ni la foofu dana ko tali ndax dafa demoon dana leen jàppale ci euh, ay ay centre de formation leen jàppale ci ay ay ay ay projet ay programme bi ñu demee dama leen wax sax ne leen gis naa ne euh, xool leen tey boo xoolee dëkk la boo xam ne booba léegi amul tali ab ranram mu fa nekk amulu dara loo xam ne defoon nañ ko fa noonu nag nga koy gisee ci Touba boog nga koy gisee ci Touba di ko gisee ci lépp. dañoo nekk ci veyu élection présidentielle 2019 je pense que c'est tout à fait normal te aussi opposant il faut ñu comprendre ne rôle opposant rek lay def. muy ñoom président tey ak nu mu mënti waxee il faut que ñu accepter ne ñoom dañu koy critiquer parce que dégg naa yeneen leader yoo xamante ne bii nee nañ comme loolu nga wax dafa taf yëngal ñii nee nañ discours ba fi doon am rek la répété waat mais vraiment ku ne xam na ne DER bii bokkul woon ci discours yi doon jàll autoroute Ila Touba bokku doon ci discours yi nga xam moom la doon def wala bu ci mosaa bokk aussi turu inauguration kenn mosu ko cee tudd donc euh, ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu bari yoo xamante ne bii vraiment euh, buñ ko doon lim fi la ñuy fanaan. Touba gi ñu nekk nag président Macky Sall xamul réalité Touba parce que ñi koy waxal naan ko baax na ñu dëgg. hôpital bi nga xam ne nii mi ngi fii ci Touba hôpital bi depuis 2004 ba léegi mi ngi tegoon xeer bi fii ñu ne dañ dañ dañ koy dañ koy àggale dañ koy defar mais hôpital baa ngi nii wax dëgg yàlla mi ngi fii ci ginnaaw garas Darou Moussi wax nañ ne def na hôpital bi la fi def. hôpital baa ngi ne Senghee daanu na Birigui daanu na dara doxul. autoroute bi moom investissement bu baax la ci économie bu Sénégal tey Touba euh, ak lu mënti xew il faut ñu d'accord ne aussi bokk na ci li gën a dundal secteur transport bi muy autoroute bi mais aussi même ba ci wàllu commerce bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen point yoo xamante ne bi autoroute bi vraiment daf koy dundal ndax il faut ñu comprendre ne autoroute bi selebe yoon lay nekk. tey am na ñoo xamante ne bii ñu doon jaari par Kaolack wala Saint-Louis ci ñuy jóge ba ma ko Fouta et Jean ñooñu ñëpp puisque ubbi nañ kii bi léegi ñëpp fi la ñuy jaar loolu moom je pense que vraiment bokk na ci fee yi nga xamante ne bii war na mën a motiver nit ñi ba surtout sax ñun suñu département bi ñu nekk di département de Mbacké vraiment ñu jéem a def le tout ba président gañu fii incha allah. dañ koy nax tey ñi doon xeex Macky Sall démb bu nga xam ne seeni pexe bu sotti woon Macky Sall du falu. tey ñoo nekk ci Touba gi naan ko ñoo ñoo lay fal premier tour loolu ñu wax dara amu ci chômage bi ak ñàkk gi ndóol gi tey boo ñëwee Touba nga dem ci sancaan yi baa nga dem ci quartier périphérique yi tey lañ gën a sonn benn mooy quartier périphérique yu bari amuñu courant amuñu ndox amul yoon amuñu ay procès yu ñu leen jàppale muy DRB yi ngay dégg yépp dañ leen fàtte ci lépp te bu élection jotee ñu bëgg ñu jàppale leen loolu mënut a nekk. nit nag su fekkee ne dañ laa fal askan wépp àndaloo nga nga gañe si cinq pour cent askan wépp ànd ceeg yow gañe la ci nga gañe loolu élection yi dikk defoo loolu defu defu démocratie ah askan wi moom ñu ko fi xaar rek ñu ngi ko fi xaar. non li mu mën a def président Macky Sall mu ngi koy def li mu mën a def mu ngi koy def c'est-à-dire mooy li ma wax sànq maanaam am na lu mu def am na lu des. léegi nag loolu des bu ñu ko mayoon sens pour mu am deuxième mandat xëy na dina ko mën a dina ci mën a àggale lu bari te ñu xam ne àdduna moo baaxuwut jag actuellement nii réew mi moom liñ naan ci guuta la nekk guute gi mu nekk mooy lan mooy ñëpp a deltu ginnaaw ñëpp a jaaxle ñëpp a sonn ñëpp a xalaat na ñun fan la suñu réew mi jëm parce que nag ni ñuy gouverner réew mi bokkut ak programme bi ñu tegaloon ñu am problème nag tey ci kon 2019 bi ñu jëm Sénégal ban Sénégal la ñuy xalaat Sénégal boobu nag moom ñuy xalaat ci jamono juñ toll askan wi mooy décider mooy xool ki mu am yaakaar ki nga xam ne du wor ki nga xam ne lu mu wax dina ko def ki bëgg réew mi kii liggéeyal réew mi koo xam ne duñ la fal nga sàcc alalu réew koo xam ne duñ la fal entourage bi yëpp di sàcc alalu réew di ko def nu mu leen neexee koo xam ne duñ la fal nga jàpp askan wi di dal ci seen kaw su boobaa askan wi ñooy décider ya ak ñaan yu ñu teg ñun itam loolu la ñuy ñaan ki gën ci réew mi mu ñëw waaye ci situation yi ñu dund ñaanuñu yàlla dellu wàcc discours à nation nag nekk na loo xamante ni si ni baaxoon na di ko am si bépp njiitu réew bu fi jaar léeg-léeg nag gis-gis yi dañuy waroo si fànn bu nekk